asalaamaaleykum ami cher fidèles internautes maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di am mbégte janoog yéen ci seen chaîne leader bile di Equivox TV la chaîne leader mais aussi c'est la chaîne qui informe juste en temps réel tey nag euh, ñu ñëw fi nga xamante ni rek moom mooy Kër Massar seet fi koo xamante ni kenn dootu ko présenté Sénégal marqué na fi empreinte am bu baax a baax moom Ngoné Mbaye mi nga xamante ni moom mooy xaritu jeeg ji moom Ngoné Mbaye ci astuce yi nga xamante ni rek moom moo meilleur moom ngoone Mbaye mi nga xamante ni rek moom moo gógganti xale yi ba xale yi daal di normal normal tey nag moom laa seet si fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni rek euh, maanaam jamono jii nag lëmbe na li nga xamante ni rek moom mooy euh, réseaux yi waaye ñuy xuus dañ koy daal di nuyu dalal ko jàmm ci bi Equivox TV maman maa ngi lay nuyu di la ziar di la bàyyi rek nga nuyoog ñuy seetaan à travers Equivox TV. taa bu jigéen maa ngi lay fay maa ngi lay ziar bu wér di la nuyu nuyu sa caméraman yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax nga ne seen bi mooy la équipe lan Vox waaw kon maa ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu waa seen bi yëpp taa bu jigéen lu andi tey. waxtaan yow rek. <laughs> doxalal. <laughs> yaakaar naa ni euh, coow li temps yi bari na torop ci li nga xamante ni moom mooy yow ginnaaw vidéo bi nga xamante ni defoon nga ko yëkkati ci ay kàddu ci diggante xale yi nga xamante ni ñoom ñoo namm maire yi nga yëkkati ci ay kàddu ne xale bi ci ñam maire dootoo bàyyi yaakaar naa ni loolu la ñu dagg dugal ko ci li nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi mu jur coow li ku ne di wax ku ne di wax defaat nga vidéo gars yi ne menacé tax nga daal di changer li nga xamante ni moom mooy sa version daal di wax ni euh, maanaam euh, xale ba ci dugg ci meer da ngay umu lan ngay wax ci loolu. <laughs> pour ñoom damaa changé noonu li ma waxoon laa dëpp ko ñoom wéruñu moo tax commentaire ndey sax des fois dañuy commentaire ci erreur nag yow sama kanam gi gis nga daray ragal xool nga ma nii fan nga ma fekk yow man xuux dàq na ma tuuti nii man damay damay de. lu ma wax dama koy assumer vidéo bi dagg bi lañ topp rek topp ñu émission ba mu jeex dagg bi lañ topp rek mais topp ñu émission ba mu jeex de te gis nga waxin déggin la laaj te gis nga bi ma tourné ak Feeling Dakar boobu samedi laa ko tourné coowul coowul góor jigéen lii moo toxol ñoom ñu téye ko ba démb ñu koy soog a daw dawuma de daa fekk ma tourné loolu émission bi mu ko tourné samedi ci suba woo maam Matar Jamra ci ngoon gi boobu xamu woon sax dinaa déggante maam Matar Jamra ci ngoon gi ci laa dégg coow li ma wool ko sama bopp man kon boobu xalaatuma woon sax ne vidéo bi coow li dina toll fii waxaatuma pour defar mbiri de ci ma fi ma doon waxee moom la ñu déggewut fi ma roon waxe man ku ci ñam mag dootoo ko bàyyi continuer ñu vidéo bi foofu lañ ko dagg tipp pour lancer ko Sénégal pour coow li jóg dañ may may bës nag dawuma de rigilew ma bébé bi may def émission boobu ak Feeling dakaar boobu fekk na imi toow lii ci ngoon gi la ma Mame Matar Gueye woo ma dégg ko ma naan émission bi Mame Matar Gueye xaw ma dina ma woo xaw ma ne waaye bi may woo maa ngi nii kon boobu yëgaguma woon li xew di dama ko defa pare ñoom ñoo koy soog a lancé démb mais xam nga sama kanam gi ba ma xoolee gisoo ci lu ragal de man su man na mee ragal yàlla na ma yàlla rey barki Sëriñ Bamba eh eh man la mbooje yow <laughs> lu tax may ragal teg ko fan eh commentaire tiit juum nañ nag juum nañ nag dañuy commenter des fois ci erreur des fois nit da koy liir sa man jàngu ma ndey sax damaa noppaleeku nañ toj au commentaire mais des fois nit da koy liir wax ma dara ma ree di ngeen ne réeri mbooja man la bañ bañ bëgg tiktok bi mbooja li muy wax jaaxalu leen du seen kaa damaa ñëw développé wokk góom yëpp góom yi yoon nëbbu woon yëpp man ko xulleet xam nga ne à chaque à chaque fois na des fois sax jigéen day jalouse ak góor ñi nga xam ne fi ngay laar arrangé wu leen dañuy jalousie mais man jigéen ji ma commentaire naa ma li ngay xam nañ ko ñoom xam nañ ko ñoom li may wax ñoomu ko gën a xam eh dooma daanañ supp kanja nañ maa nañ waaye am na xale yu ko xamut man ñoo ñoo tax a jóg mais jeg gi wax ba toog ñi chronique ñoon ñu maa jóg na wax dëgg yàlla man xale yi xamul dara laay lijjanti mais xam ngeen ni man yabewu ma Sénégal yëpp gu ma toog naan leen xale yi dem leen wëri ji maire yi ndeysaan foofu lañ ko daggee amuñu dégg-dégg maanaam xale vingt cinq ans vingt trois ans boo xasee ba ni kittam yàqoo ko jigéen ba xamanteeg maire dootoo ko bàyyi foofu laa waxe ñu ne ko fa tipp tas ko topp ñu vidéo bi nit nag bala ngay dal ci kawam da ngay topp la mu wax Sénégal dangay wax dara ñu dagg ko fa mu safe lancé ko pour yàq la eh, man la ku yaakaar ni xuux moo may dàq barke Cheikh du Bamba xanaa bakkan bu wadd waaye tant que maa ngi nooy ci TikTok bi ku wax ma wax ku génn ma génn ëpp ñu may fii ëpp ñu may commenté dàq ñu maa wax Serigne Bamba laa bëgg. mais gars bu lay attaqué bu ñu lay attaqué ci biir TikTok bi ci boppam loolu nan nga koy nan nan lay def. <laughs> defuma dara. taw bu jigéen fi ma jaar a gën a metti lii anniversaire la coow li anniversaire la daaw gënoon a metti daaw lañ may coow di ma coow di ma coow ba ma ñàkk sama waajur bu jigéen ci biir coow li ñëpp jot ci foo tourné oustaz yëpp génn ñëpp génn yàlla seddalu ko at bee del si waat ndax suba la ñu ñaana sama yaay suba la atam at bañ ba doon coowee moo del si anniversaire la mënatuñ maa wax mukk lu ma naqari lu raw liñ daaw barki sa Amadou Bamba. léegi yi nga xam ne dana dàqa leen dootoo leen ma jooyloo dootoo leen ma génn TikTok dootoo leen ma misèreloo dootoo leen ma xalaatloo maa ngi yéen regarde moi jus de l'ange lu ngeen ma timbax ma timbax leen ko ba mu saaf. mois de mars laa judd doon jeeg pire comme ñoom oo ma téeméeri at oo ma juróom fukki at oo ma ñeent fukki at ak juróom damaa toll sama digg jeeg xale yi topp ma ne ma yow la xale yi jeeg ju ndaw ji ma leen di jàngal àdduna yor samay groupe di jàngal samay xale. jéggi ndaw ji xam ñuy soog a dugg sëy xamuñu fu ñu jaar seen jëkkër ma téye leen yow mag mi nag maa tax a jug ba naan yow li ngay jàngale li nga xam nañ ko e taxaw maa jug lijjantiwuma la yow mag mi dama daa maa fi suluxu ma la xale ci ceebu jën lay waxal nañ ku mel ni Fatou Laobé nekk koo xamante ni euh, artiste la ñëpp xam nañ ko ci réew mi ginnaaw vidéo ba mu amee moom def na li nga xamante ni moom mooy vidéo lancé ko si TikTok euh, attaque la nag nee na wax ji euh, maanaam kenn santu la ko ndax li ngay wax yëpp ku ne xam na ko képp koo xamante ni rek jee nga xam nga nooy tojee sa bopp ginnax ba ci ay nàmp ak yooyu daal nee na wax yu ñaaw yooyu noonu. ndax moom dafa maa tooñ ndax moom nàmp gi ba féetal sama waxuma ko moom nàmp ga ma ca doole sa waxuma ko gis boo jógee bay kaas da ngay xam li ngay wax lan la moom ba muy xew xew ma doole moo mën dëgg papa gajaga yow ca kanam ba mu koy wax maa ngi ci mbedd di fecc xumbal ma dinaa jàkkaarloo faataloo bi moom fi mu toll dafa toll foo xam ne vidéo bu boo boo woy ci moom sax da koy collage pour wanawaat ci boppam ndeysaan pour jogaat waaye wal sa moome guddi man la moom def na fi lu ne way na way na fi lu ne waaye nag yaa gis benn artiste bu tolloo jamonoy faataloo bi bu nekk ci tiktok bi ana Fatou Guewel ana ñoom Kiné Lam ñi nga xamante ñoo fi nekkoon artistes yi da nga gis kenn ñu ngi ci leneen de Fatou Lo bi rek laa fi gis artiste bu taxaw ci internet TikTok bi di lëmbe. ah xaw ma mais Mbodj nag kenn du jàpp na ci moom pour jóg du ma ko may kenn ma dàqa taf nit ñi barke si Amadou Bamba sama compte YouTube amul ku ma ko pële xanaa ñu mag ñi. sama compte TikTok su ma ko taalee ñëpp wuy si ma lu ma waaye war penn mën naa laa tontu fukk ak juróom-ñett oo oh ma jot bi dama la may bës dama cee toll ñu bari nag boo tàkkee ñiy def ci yow vidéo kenn dana ne ñu bëgg a pël bëgg jàpp say mbagg pour taxaw Fatou bu lu may wax ak moom ndax moom am na xam na moom li muy xam man xale yi laa soxla yu ndaw yi xamagul sëy bëgg ku leen ko jàngal daw wéeru ci man ma leen di won ñooñu ma taxaw man amul lu may wax ak moom ndax doomam dama koo sopp dama ko seetaan ndax ni mu téewee jëkkëram di ko tiitaroo di sëy ko tax mu neex ma ma di ko suivre kon su ma nee bërit pour daal ci moom xalaat doomam jooju damay bàyyi parce que sama fans la ma ko seetaan te daan na dugg sama biir sama sama live moom doomam jooju waaw muy nday faatu la xaw ma daan dugg sama live nday faatu moo tax oom lu may wax faatu loo bi moom sama mbag loolu ma wax baax na waaye na xam ne nag loolu ma taqal ci nàmp gaag yooyu jamono ji may taf moom di ma ko wax waxuma loolu nàmp gi waxuma ci dellu ginnaaw tuuti ci li nga xamante ni moom mooy euh, góor euh, euh, góor ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo bëgg maire yi waa waa loolu moom ñu bëri nee nañ euh, xanaa mu doon euh, maire tubaab mais Sénégal fii gis ñu xale buy topp maire la nga ciy wax da nga ciy am ay retour ci à travers laaf yi ngay def góor ñi di la naan maire yi lañu bëgg wala lan la. <laughs> non daa bu ji xam nga. fii Equivox la duñ ci waxaat. du ragal de yokki wax de maanaam di ko tëb di waxaat day tax li ngay wax day gën a day gën a bëri te du faj dara te bu dul dara sax ma rus ma ma taar gay jàmm kilifa la dafa wax man. góom boobu dafa mitti ji góom bi dafa mitti boo ko nee xulleet foo jaar coow li bari débat ma ci puusawoon sax ba ma dugg ci mais musuma cee na koo wax barki Sëriñ Bamba mais débat moo ma ci puuse ba ma dugg ci mais musuma cee nangoo wax senegal fii ku ne xam nga li fi ne de ay xale bu takk mag loolu la ñuy wax ne amu fi. nee nañ tubaab bi daal nga gis xale bu góor bu takk tubaab. <laughs> fii ci suñu réew mii nga ne am ay tubaab dama bàyyi mais mais am lu spécial lu tax xale yi daw ci ñoom. eh li jënd duuma loolu du ma ci dabaawaat. Ah, non du ma ci waxaat xam nga du ma ci. non du ma ci waxaat. amul nañ jàpp ne amul amul. amul mais bu sëy bu amuti leneen am na fi. entraîné ba ni fuuj mais li ki peere la am na fi foofu laa yem damay tëj zikaloo déggoo ko am na fi mi ngi lëmbe Sénégal fii yaa mën yaa yaa yaa dégg lu amu fi ba ni yegg ci taalaate ñu ne amul ñu ne fii la wax amu fi. ah Sénégal la moo tax ñu naa féq nag tamit nag. mais est que nekkul góor ñi nga xamante ne ñoom ñooy entraîner ba ceenee euh, di wër ñi nga xamante ne ñoom mooy maire yu am xaalis yi foofu foofu ngay waxee wala dafa am ay xale yoo xamante ni dañuy nekk seen digg euh, ndaw yor seen xaalis bëgg maire. <laughs> xale yi it ànduñoo ak maire bu yorul dara soxlawuñu la. duñu ànd ak maire bu yorul dara du takk maire bu yorul dara fu loxo bi safewul soo sàpp. duñ fa bi mais bu yoru dara da leen di yokk coono te doon faje seen soxla soxla ñu la de sama wax ji dafa laj dégg dañ koo dagg lu ci bari dégguñu ko ak samay noon di profitoo dafe ne dinañ ma dàqaat tiktok bi tiktok mboo jëmbaay ñëwaat na bu ma ñëwaateeg léegi daanaka léegi mataat tuuti laa génn ñawaat xam nga lu ma andiwaat jéggi ndaw sama ginnaaw di jooy tata boo bàyyee fu nu jëm yow leen bëgg eh ñi ma bañ ñi ma bëgg fuuf ñi ma bañ te benn bi la bañ benn bi la bëgg jar naa liggéey ba dee tey su ma xoolee fi naa yàlla nee na yeneen bi nee na sax du tax bu ñu ma bëggee critiquer critiquer ma ndax ñu koy wax amuñu jàmm ustaas yi waaraate sax ci digg réew mii amuñu jàmm kilifa diine yi amuñu jàmm ndax suba gu ñu xëyee taf leen ñoom yàq leen lu mel ni xeteme man la lañ ma war a wax lu ma saf man pour ma leeral leen ni leen la ngeen ma waxoon daaw wax du ko gën a mitti bu ren bi dama koo sirik naan ko yëgalu ko sama yaram damay seetaan sax euh, sa émission sax ay ree jàpp ma parce que nag saan ñi ci seetaanu ñëpp profité pour bëgg a la ngaa ba samay mbagg pour taxaw pour ma may leen bës tudduma fii ku fi nekk liggéey la fi ba ñi ngi jaay ci tiktok bi ñi yor seen i natt di ko natt di ko teggi yaa ngi may dégg ñi yor seen i euh, produit bi di jaay ñi yor seeni i bagage di jaay ku fi nekk am na la fi def nday kenn moomu ko bàyyi kenn moomu ko moom laay lijjanti mbirum taata fi ne àdduna génn fi góor ak jigéen eh nan la may jëkkër nga dem fekkoo fa dara day am lekk day am naan kirim yaa ngi la wër mais ndigg la néew fa da nga fa toog nañ bàyyi hypocrite gi nañ wax li fi ne di ma ci daqaani génn dàqamtiku góor ak jigéen moo fi ne góor ñi kër góor ñi tëdd nelaw yóbbuñu fa tëddante lañ wax am doom dañoo may kenn muur la ne la soo soo demee nga nga toog fa doon rek di lekk ceeb di naan di naan ndox rek di naan boisson moo la fa yóbbu loolu yóbbuñu fa de góor sey woo dem ak bu fa ndigg amatul l'islam neen da lay neex nga toog neexu la demal a yoon comme ndigg a dëgëratul ñun mu jaaxal ñun ñuy wut lu ne di ko yëngal di la ko jox ay café ki jinjeere ki daqaar yëpp pour nga mën a taxaw pour lijjanti ñu kon ndigg ñu fa yóbbu lan moo ñu fa yóbbu leneen nit du naa fekk nañ wax lu ñu yóbbu kër góor yi bu dee man waxu góor ak jigéen doo nga ma ñor te mën nañ koo génne ci àdduna bi nañ ma wax lan lañ fi mën a teg ginnaaw jaamu yàlla lekk naan jaamu yàlla wax góor ak jigéen ci topp ci diina ji la bokk yàllaa boole góor ak jigéen daal ni góor jigéen yi maa leen boole pour ñu sëy ñoom ñaar am doom kon àdduna bi Sénégal njaay boo fi génnee góor ak jigéen la fi des xale yu jigéen ñi nañ toppatoo seen jëkkëri sedd baa ngi ñëw di leen tël ba Sénégal njaay di wàcc taal lamp yi felaale sànneeku def leen saf maa ngi. eh yow at moom mais mais mais ñu bëri nee nañ euh, maanaam wax ji euh, xale mën na ko dégg mag mën na ko dégg tey yow euh, ñu am jëkkër ñi ngay wax wala célibataire yi. man musuma wax bañ rek ka fi nekk nag bañ ma rek ka fi dee waaye musuma wax célibataire jombat nag loo ko bañ bañ mu ko noppami gudd ma lépp lu ma mës a wax sëy la damaa fonk sëy ba lépp lu ma mës a wax ci sëy laa xanaa ñoom man lañ jàpp xanaa Sénégal mboo jëmbaay ngeen gis yéen wala dama saf sàpp rek xanaa waaye maa ñaaw yaay nag tamit ba tax lu waaye bu këpp ma ko boole wax góor ak jigéen yëpp tee parce que c'est meilleur nag maa jël pee coow li coow li man la ku tëddoon ni ndam tama ñu tëggale ñaari boor te ki ngeen di tëggee ñaari boor ragalul de ndax liggéey leen ba ci tiktok bi liggéey ma fi baax neex naa la seetaanal neexu ma la zappeel méttiwul mais ni ma nag da ngay noppi lu tax ngay wax li ngay wax dañ koo xam ñëpp xam nañ ko am na xale yoo xam boo leen tëjalee góor dinañ xam ne fii la góor war a dugg mais nu mu fay duggee. lu may def ba mu neexal ko lu may def ba sama jëkkër topp ma nan laay bëggal sama jëkkër nan laay sete nan laay raxasoo nan laay lale sama néeg nan laay taale cuuraay yaay yi waxatuñu benn doom ndax talatun leen xale yi jigéen yi bari dama leen arrangé moo tax des fa bu ñu may critiqué dañ dañ dañuy langaamu sama ginnaaw man xale rek ma téye barke Seex Ahmadou Bamba xale yu jigéen yi ndaw yi ñoo ma gën a téye jegg ndaw ji ñoo ma gën a téye te ñoo ma gën a bëgg ak góor gi nga xam ne seeni jabar rek leen di bëggal te ci à cause de Mbodja Mbaye li wax buñ ko xeeb waaye nag mag mu ma ci Dakar ak li ma ngoog Dakar ak li nga mag mu daar dak eh, dama daa taxoo maa jóg de man xale yi xamul dara lay waxal ñooñu ma tax a jóg ñooñu laay lijjanti keneen koy wax nag sama fuu da ngay liggéey di am damay liggéey di am tiktok moo ñu boole xamulu mu tus waaw <laughs> dëgg du neex yaakaar naa ne te émission moom mais mais tey boo taalee sa taalee sa tiktok plus de dix mille personnes wala lu ko ëpp di la seetaan di fois doo ci jot ay wax yoo xamante ni tegginewul ci yow en tant que borom jëkkër man lu lay waaye su ma yombee xam nañ su ma yombul xam nañ su ma dee jaga xam nañ su ma dul jaga xam nañ nag ndax gis naa lu ne nag fii ma toog miti miti laa yor nag barki Seex Ahmadu maa ba ma yàq Sëriñ Bamba rek laa bëgg nag waaye métier mu métti laa yor ci jigéen métier mu ma gis lu ne ñoom métier bi su ma xamoon suñu xamoon li ma ciy ma ci mënta encouragé nañ ma baax te kenn taxuma cee sonn ku dul jag ndaw ji waaw ak ñi ma ci bëgg nag di ma ci teral nag li may wax neex leen ñu may seetaan seen wërsëg na ci ñoom ñu ma ciy teral pour la may noppi mais li ma ciy jànkonteel man ak yàlla rek ko xam wax ju ñaaw ji moo ci gën a tuuti téléphone yeeg yëpp moo ci gën a mitti te ko seere eh lu ne lay dégg lu ne lay gis waaye su fekkantee man damaa doon nga xam ne da nga ñëw a fëkk bunt bi tijjeeku ñëw ñëw def la neex dem sa yoon ñoom xam nañ fii su ma fi defoon lu ñaaw wala lu rëy ba tey weer nan ma ñii ëmbaluñ ma sama sutura te ñii suñ xamoon ci man lu garaaw ba tey toroxal nañ ma bu yàgg waaye dañoo fekk doom dunda ndey ak mu toog fi mu war a toog réegu uufut njabootam di liggéey sama kër gi kenn fekkuma fi kenn xamul lu muy dundee sama njaboot bu ñu yaakaaree ne wax ju ñaaw mën na ma fee génne dañu wax ko ustaas yi wax ko ñëpp man bu ma xeebu mi ñu bëgg ma fee génne man pour tiktok dañuy liggéey may liggéey ñu dañu tiktok bu yeboo ngeen fàttu ji de waaju ma eh. mais monsieur na monsieur monsieur nan lay dundee mbir mi. monsieur ngi fii toog di leen dégg day lire commentaire ree parce que ñi may commentaire ñëpp xamuñu ma pour nga xam nag ñi may commentaire ñëpp xamuñu ci mun tous. barke Serigne Touba xamaduñ ma dara dañuy bind rek pour décourager loo ma dañuy bind pour ma daw dañuy bind pour ma jooyaat ñu kontaan sibile bile publier vidéo bi ma def demu ñu gis ma ci ma biile di wax ak ma Matar Diaw da ngaa gis koo publier benn xale bu góor rek laa gis mu publier ko ne Mbodj Mbaye waxaat na wax ci lu gàtt dagg te la ko ci intéressé daa teg kooku rek laa ci gis de bu doon dama caa jooy nag ba jooy deret fépp lay wër ñaw dàqati nañ ko amul jom kii dinañ ko ñoq dinañ ko ñuus damaa am yaay sama yaay dee bàyyi maag samay rakk mu uuf leen mu am at suba samay doom tafu sama ginnaaw man lañ yaakaar may sama taawu yaay toog ci kër gi xamuñu ma buñ ma yàq te nag dama am ñaan de ba may am ñaanu papa 10 ans sama ndey gërëm ma génn àdduna barki demoo Njaay Sénégal Njaay gépp seede ko ndax sama sama life la dugg directement te ngërëmam loolu yàlla rek tax mu gërëm ko sama borom kër gërëm ma. xam rek ay wax. eh xamuñu ma nag man ñi ma xam dëgg te naa fekkuñu koo ci nu mbooja ma wax la kuy mbooja wàccal bi restaurant boobu ba sama kër nga laajte kuy mbooja koñ bii ma dëkk kenn yàpp ma fi gaynde pire laa waalo waalo lañ ma tuddee may géewal pire moo waral mbooja ji yaa gis jigéenu waalo mbooj bu tàppet ma rax ci géewal man toog fii sama kër gii yor sama njaboot ñu wéeru sama ginnaaw samay rakk yëpp wéeru samay ginnaaw ngeen wax ma lu ma dàq man après ma reculer ngeen des fi di lëmbe def seen poos réer ngeen xamul leen dese ray ma ma dee mais bu dee wax doo ngay tax ma génn kon yéen jommi ngeen parce que génn gu ma waaju ma sax nag dañuy liggéey damay liggéey lu waaye mën na wax ba am ci ba faj say soxla def xal ñu sos seen natt yi nañ natt teggi ñuy jaay-jaay man jaayuma sama làmmeñ laa yor koy woo doo làmmeñ boo noppee raf la sëñ Bamba laa bëgg di taaliba sëriñ Bamba bu piir bëgg ko lool rawatina sëñ Fallou Mbacke tuma dara lu mën na ma tiit yàlla nañ ma yóbbu Touba Bakhiya barke sëriñ tay jii yan ngay am ci jéeg ji nga xamante ni comme nee nga jéeg ju ndaw yi ñoom ñoo la ñor ñoom ngay dimbali pour naka la ñu mën a yoree seen yan retour nga ciy am ci tey ba duggoon sama groupe bi am na góor ñoo xam ni seeni audio sax laa jot seeni jabar ni la neen soxla Mbodj kontaan naa ci moom góor ñu bari di ma teral ndax ni ma changé seen jabar ci set ci togg ci tal leen surtout set gi dindi naa ci lu bari waaw xanaa yéen waa Sénégal Ndiaye xanaa ñoom heure di Mbodja Mbaye rek waa ñuy wër man xanaa wax naa benn vidéo bu baax sax boog au moins 5 ans ma def ko ci TikTok bi xanaa au moins wax naa ñaari vidéo yu baax yu ñu ma mën a kërëme waaye man rek lañ war lañ mëri toog man man li ma jot ay retour ku ñemee dañ laa dee fi ma dëgg sama tànk saa moon dara maa njëkk rikki la bala maa kenn dàq da ngaa fàttali maa ngi télé 2STV dama faa namm dara su ma neexoon yam fa mais 2STV damaa fekk sama compte sama TikTok ci tele laa jóge man soo ko dugg TikTok TikTok maa ko jiitu man may nekk ci télé boobu TikTok ñëwut TikTok ci la pëlle ma feeñ ci nekkaat ci télé te musuma galéré musuma déposé kayit ci benn télé ni kaay jël ma barke Serigne Bamba fii ma toog fi laay toog appel fekk ma foo dem liggéey ñaanu ma li may def nag bay def bii ku nekk yaa xam na ngay def ba def bii lii may wax bay def bii moo ma gën a fu ne ma ubbee mu laay tegit ubbi juróom raay fukk dugal yëngal sang su ma ko nekkee woon mu gën a métti di akamaa yomb nag ubbi juróom su ma neexee ràcc ko fii def lu ma saf waaye man damaa ragal yàlla sama wax ji buñ ma ci gisee wax la liggéey bee ko laaj ma wax ko jug faxasu dem sama yoon waaye duuma du ma jigéen ju bon naa fekkuma lu ne ci ma dama ko wax damaa dëggu lu ay fen na nekkuma ci ne fii di def la la saf buñ ko tuddee nga génn da nga wax ko nekkuma ci yooyu de tey boo ma jàppoon ci lenn nii ni ma ndax yaa def li man la man la ni ma toll sama ma ko ëpp. parce que des fois moom moo dafa yor ay xale di leen jàngal lu bon ay commentaires yoo xam koy liir. waaw Mbodia dafa yor ay xale di leen jàngal lu leen jàngal néeg yu neex daa leen di jàngal ni ñuy teewee seen i jëkkër daa leen di jàngal man yoruma sax ko amul jëkkër. man ku nekk sama groupe da ngaa fay ku nekk sama groupe da daw ñëw pour noo yore sa jëkkër jàppale ma nag te li gën a garaaw wax waxu góor ak jigéen bañ sargal la sama waa groupe compté un million teg ko sama loxo heure bi daaw maa ngi feetu six mois la defagul ñu sargal ma fii ndax li kontaan ci man réunion bi rek ci góor ñi bari bàyyi seen jabar ñu dajee sama saal bi fees fi deel eh doomu jàmbur ku ko yàq danga koo jurut man damaa wax bañ takkal ma médaille bi door ci góor ak jigéen dañ ca gis seen bopp man ay góor ak li ma ci defar bari na góor rek waaye moo tax euh, Mbodia Mbaye lan moo tax du du xaw a wodd wax ji mais moom ci digg bi lay jaar moom. non man jaar ma jaaroon ci digg bi ñu xam wara samay vidéo ndax dégg nga ma ne nangam taanu jigéen ci digg bi oo ma ñàkk kersa googu ak nangam daanu góor awra sexe yi ñëpp wax musuma ni nangam taanu jigéen. kon ba ma naan ma ci Dakar sax laa wax ma ci Dakar ma ci Dakar waxin la déggin la laat micro man la micro gisoo ni mu bindoo yëpp dama koo wodd dañ maa yab rek waaye am na yu gën a xàttar bi ko te ci tiktok ba une di du matin nga dugg ci laay fi xool ñu may tere benn tiktok nga koy wax fukk ak juróom-ñett man lan yàpp man maa pël téegu sama kaw damay sant yàlla na ndax oto bi ne ci kanam rek la ñu corné ñi ci ginnaaw kenn leen moo tax na boo taxawee say noonu dañuy jóg ñu suulu woon ba nga jàpp ne ci pour taxaw mayu ma kenn doole pour nga jug taxaw assumé naa samay responsabilité bu baax a baax réglé samay doom la samay famille ñu xam ne nag maa nekk tiktok dékku naa lépp bu njëkk ba ma doon jooyee ko misère noonu sama yaay fi doon dund de ma bañ mu yëg coow li nekk ci feebar di dund ma bañ mu yëg coow li nekk ci feebar ma affolé jaaxle ndax coow li barante boobu mi ngi feebar di laaj lu xew ba génn àdduna ci biir coow li sama yaay nag nekkatu fi maa fi des ak sama jëmm ji yaakaar yàlla ak yeneen beeg sëriñ Bamba du paa buy wax du meer buy wax du kenn kuy wax man la ku mën seetaan ku mënul zappeel waxu góor ak jigéen laay wax ba ko ci suuf te bis ma génnoon na nañ ma ko tagal moom laa fi liggéey ey mbaay ji may wax waaw kay mbaay di njambax njambaxi bis ma dee nañ ma ko tagal ma ànd ak moom di njambax njambaxi ba yegg fañ fañ may suul man la maa ko fi liggéey ñiy ko ci dee ñu tagal la ma ñiy way ko fi dee ñu tagal la waya dégg man ma wax góor ak jigéen ma dee nañ ma ko tagal mais li ma la leer te leer ma li ma defar ci sëy Sénégal yàlla kontaan na ci man su ma dee woon tey ji guddi tey tiitu ma parce que Amadou Bamba xam naa ne man yàlla kontaan na ci man parce que li may réglé ci ay sëy moo bari ñu naan ma dangay wut néeg boo kër goo toog di ko fa def pour bañ ko su ma waxu woon kan moo may dégg ba xam ne maa ngi liggéey li li may wax moo laaj wax tey su ma toogoon xëy ni batt fii kenn du xam li may waxtaane ba dima fekk wutuma kër wutuma studio wutuma néeg sama saal bii laa am ak samay téléphone lu ma bëgg rek la rek la ko ci man raayif ba réew mi yëngu leer na kon tiktok bi daw ma saala yaayi ndagarawale su ma am woon ñu topp sama ginnaaw naa am bul tontu ku taal ma taal ku live ma live ku vidéo ma vidéo dama leen di gën a seetaan maa xew. neexul seddaay baa ngi ñëw lay lay wax jéggi seddaay bi. Eh, xanaa ñu pare. ñu waxati nañ dugg takk rido yu diis nag suñ bëggee cuuraay di toog ci biir néeg yi nañ takk rido yu diis yi ñi seen i néeg am mu ket nañ ko fëgg fóot ko ba mu set eh sedd dafa neex de. mbaay say yëpp sedda ci dàq ak nawet moo ci dàq da ngay lalu dangay nelaw jéeg ji yeewu yëpp mën nañ ci sedd bi ñu profité seen i jëkkër xale yi laa wax de jéeg ju ndaw ji ñi dem ba dikk taxu ñu maa wax de ñi xamagul te topp mbooja mbaay yaakaar ko ñii laay waxal te gëm déet xale yi foofu leen mu keti te jënd de gis maay góor na nañ jox xale xaalis nag day apprécier seen jabar yi góor nañu appris seen ja seen jabar yi bu ñu soloo ba déguisé wu ba dugg ci biir néeg bi taal lampe bi di weñaaroo ko bu lax ndëkku ne ko ah bébé li nga sañ sa rafet na mu kontaan sax xam ne li mu la defal jar na ko mais góor jigéen solo sa kanam nga ne muñu muññooro tamit nañuy apprécier seen jabar yi waaw jigéen day mokk dafa rongu jonge day mokk rumbux góor mooy jonge te góor jonge mooy apprécier sa jabar di ko tiitaroo loo am jox ko di communiquer ak moom loolu mooy joŋe bu wóor waaye jigéen nekkal jëkkëram xale yi jigéen ñi ñeme tilim du ñu fóot seen kalason jëkkër góor ñu bari ñu ngi sangu ñoo yóbbaale seen i kalason di ko fóot du yoon te kalason waroo koo dajale ba muy fekkante dañ koy fóot ba mu set teg feer lem teg góor war na lu mu fekk ci armoire am bu waree solo bu ko tijjee lu mu gis xam ne lii la war a sol boo fi nekku sax ma a solo ba la jéeg di liggéey ci kër nag ba ba génn jëkkëram di ko misère moo ko fay def baleen tayal gi la ñuy bañ nag ma di ko wax mooy xale topp maire maanaam tey ji xale bu góor bu ci daw di wuti ji maire ne maire yi gën a set dafa laaj set ne ñoo gën a set dafa laaj set dëgg gi nañ ko wax xale yi ci bari setuñu des fois nga dégg ay góor yoo xamante ne dañu ubbi rek daw waaw tarkaal la ñu ngi koy jooy kon xanaa maa xam li may wax ngeen ma noppi bu fi waxati li nga war a wax da nga war a nuwaay yow eh, xool yow ñii buñ ma taxaw wax ah, de noppi yàlla na dee góor ñi dama jooy ñu naa ma noppi yi jigéen ñu ci bari setuñu baa la ni yëndoo suba ba ngoon jot pour ñoom ku ci xëyul takk tubéy rek yow solu woo te jigéen da ngay woddoo sër di pellal ci biir kër gi def sa rob bi yaraax bu fi sa jëkkër nekkee sànni sa mël fa may luusi baax tey xëy ñu neex yaram day set fu fa góor dawale bakkana kanamu xëy neex surtout sedd bi nga xam góor ñi dañuy bëgg di kottante ak ñun sëlër yaram tàng yi da lay dimbali waale boo ci kottee koo xam na ko kott nooy nelawe set ci gémmiñ set ci bakkan teppax ndunkurung tànk yépp day fara set bu xees baa ci yam ak mu ñuul ba nag jigéen day set ñi may parfum ñi ma ay cuuraay ñu may dara yu weex day yokk mbëggeel waaye góor ñu bari ñi ngi ci mbedd yi ci terrain seen jabare sëtu moo tax mënuñu faa toog déggoo jigéen yu bari yoo xamante ni dañuy toog naan sama jëkkër du ma def li du ma def li bu ñu toogee ak seen yeneen xarit yi ñoom seen xarit yi li ñuy wax seen jëkkër dañ leen koy defal ñoom duñ ko am est-ce que tamit yooyu du ci set bi ma ñu koy jooy ku leen macal daqaar gu setut daqaar bu ñu ko togg sax dañ koy raxas ba mu set dindi xoolite ba ko ci gën dëgg ba ko ci kon daqaar sax bari ñu koy macc day set jigéen dafa war buy sangu toog jot boppam xale yi bari ñu ngi ci erreur ñu xam lan moo tax seen jëkkër génn ci biti boobu ñàkk a set la te góor jigéen mooy defar góor man góor gu salte laa gën a mën a xëcc mu ñëw ndax bu sangu jotee nga njatt ko ànd moom ci duus ba fecc faak moom bëre faak moom ba mu sangu surtout sedd bii ku ci yor jëkkër ju ragal ndox bu yeboo nga teel a préparé ah, ah lan fi ñu doon jigéen bu setul góor mënu koo defar uh-huh. waaye góor bu setul jigéen mën na koo defar duwoo ko ci biir néeg ndaxtaanante ak moom ba sangante ko ba topp toog di fexe lu muy sol mu set bu heure sangu jotee nga ndaxtaanante ak moom ba mu sangu noonu nag laa amee jigéen ñu ragal ndox te jigéen ñu ragal ndox sa jëkkër du set bu dajeg nag koo xam ne mën na koo jàngal set topp koo set wicc mu topp ca góor moo bëgg lu neex bëgg lu bakkane bëgg lu set kon ba bëggee du jot poosam bii loo wax mu def ko dee ko seddal xolam du ma jóg ci lii de musuma waxi far nañ toppatoo góon te ñeme digg lal te dàkk digg lal yi waaw te góon tam bàyyi dëgër bopp gi des fois da nga gis jigéen ju set mais pour jëkkëram set mooy problème am day naxtaan ba sonn jëkkër ji lànk na du sangu am na ñoo xam ne problème boobu moo ko fi génnee vidéo eh taw bu jigéen ma lu ne wax naa ko barke Seex Ahmadou Bamba lu ne wax naa ko dan maa yab rek waaye lu ne wax naa ko du góor di sangu nga teg ko ci biir néeg mu ne la sanguwuma ngay poñanteeg moom ci mbedd yi ko xeexam moom pour mu sangu mi ngi fi. am na góor ñoo xam ne sedd bu commencé duñu laal ndox ba bi jeex dañuy mujj mel ni nga ne ci ñoom nag di dang-dang yi loolu rek coono la Mbodia Mbaye wax ko nga ne pat barki dem laa génn vidéo xale jigéen xees ba weex ñaf ci tatouage bu dul deñ ñu la problème bi kenn tudd ko intéressé wu leen defoo la ñuy wër Sénégal gën a bon ci àdduna sénégalais fii dina des tuuti góor dootu fi dund ndax góor yëpp yàq nañ leen góor yëpp yàq nañ leen yow deel xool fi doon Amérique dafa seddu guyu ba ñuy conseillé Europe gi koo ci woo mu ne la ñoo seddu ñoo ngi nii di bëgg a dee galaas gi di wàcc ñun mu ñoo fexe ba am galaas fu ñu toll ñu ngi su feew dañuy tàng di ñàkk di tàng suñu xol yi moo moo miti maanaam suñuy xol moo nu sonal sénégalais waroon a gën ci Sénégal ci àdduna kilifa yëpp fi lañ tëdd kilifa yu baax yëpp fi lañ tëdd nit ñu baax ñëpp fi lañ tëdd mais suñuy xol moo ñu sonal bëgguñu kenn dem ñu dem te ku naa dem ñu pàdd la léegi nag tàngaay woow ndax moo ñu jàpp suñu toll koo ci gis ma ngay jël jëli réew yëpp a sedd ba mu des ñun suñu xol yi moo ñu tardeel nañ baax nañ jàmm doo koo xam ne mënoo koo yàq fanaanoo maag yow dajewoo ak man fenn xaritoo maag yow noo ma mën a yàqee tax di li may wax tey nga ci Sénégal def li la saf animaire yi fecc ci Sénégal di lëmbal ba neex di baara mbay ba mu neex sëri gàtt yi lëmbe ci biir Sénégal di wotu tegi fer danga ko daan gis yi de baa di fecc nu mu leen safe maire yi lëmbal xale yi lëmbal ñu bëgg engagé Mbodia Mbaye et eh, ma taxaw wax de musuma daw pour na leer vidéo boobu Feeling Dakar dama koo romb damaa def émission bi ñu koy soog a publier démb moo jiitu waaye bu ñu yaakaaree damaa jënd galaas jënduma galaas de la ma doon wax tey laa ko gën a mën a wax. Serigne Bamba rek laa ba ma daw face à face corps may waalo waalo pire may doomu géwal. bu ñu fi ñëw te duñ la laaj li nga xamante ni moom mooy góor jigéen bu ñu euh, sulli taal ko euh, euh, fa nga xamante ni moom mooy lew nañ a seet rek nga daal di tàggoo. góor jigéen moom sama yaay ma ñaanoon loolu góor jigéen lesbienne politique loolu yëpp dafa maa waxoon bu ma ci wax parce que comme fii laa dugg mu mitti su ma fa duggee day mitti man samay wax daa mitti taal bi nag kenn rafetlu ko foofu rek laa ciy wax personnellement sunu diina may ñu loolu ay jullit lañ te kii dañ ko toroxal dañ ko toroxal de te ñun xamuñu lii kon nga xam ñu Sénégal xamaguñ fu ñu jëm léegi di wër taal nit ñee ñu dese lii moo ci desoon góor jigéen waruñu woon a si jugé dañoo waroon a bàyyi yàlla ba mu dem fajal boppam ñu waruñoo fajal suñu bopp ay jullit lañ te kenn xamuñ ci lii su li nit di ko diri pare taal ko jëppët Sénégal gépp teg bët moo tax ñu fàtte mbooja ba loolu pële nag lan ba mbooja ba boobu pële na lan ne nag am na lu ñu wax nag kaar yu ko mbooja ba ci kanam lijjanti lii kon am na lu lijjanti kenn rafetlu ko nag góor jigéen kenn du ko may doole kenn àndu ceeg moom kenn bëgg ko ndax suñu diina nanguwu ko te duñ la dooleel waaye nag taal bi dafa ëpp pour bu ëllëgee encore une fois nañ ci def attention yàlla kenn du ko fayul mooy fayul boppam te dafa bëri yërmaane mën naa àtte nu ne nit dina nekk fi ba nga tiita ko defee ne demee de yàlla da koy lakk ba saaf ko mu dem yàlla àtte ko ci yërmaandeem bu kenn si sa kenn yàlla xam ki baax yàlla xam ki muy atte kon muñ fajal suñu bopp nañ bàyyi yàlla fajal boppam am nañ nag droit almetu almeeri jullit bu fa góor jigéen dugg sanguñu julleewuñu mais am nañ àll sa buñ la yóbbu suul la am na sax àll bu la mën a suul suturaal la ndax nekkatoo fi waaye toroxal la ba sa yaay jaare fa génn àdduna du famille yëpp attan eh, gàcce de gàcce baaxul de day rey nit day tukkal àdduna am nañu ci jaare gàddaay ñi ko attanum dëgg jaare fi dee du ñëpp nga yàq ñuy continuer di dund kii dem dem na pare waaye tey famille nan la ñuy dundee lii yaayam dem na moom dem na léegi famille bi fii fi des léegi fan la ñuy xaj nan la ñuy dundee lii amul ku ko rafetlu nag ah man de bokkuma ci naqari na ma nag parce que nag tamit xol laa yor te jullit laa mais li metti na rafetlu ma ko àll am na fi leneen am na fi waaye jël ni def ko nii ëpp na bu ëpp na dara rafetu ci xaw ma na lu ko diinaatee mais bii moom bii moom moo dese woon waa Sénégal tamat na sax xanaat nañ ba mbooja nag. jërëjëf Modou kontaan nañ ñu bàyyi rek daal di euh, tàggatoo ak ñu ñuy seetaan jërëjëf waxtaan bi yaakaar naa ni moom na gën a xuus rek ndax moo jë moom kenn doyal ci <laughs> di la jaay jëfal taabu jigéen di leen wax nag li ma leen wax rek de buñ ma gëj a gis si site ba defee dama site ma bàyyi site yaa ngi may woo 24 heures si 24 daa am ci lu ma ne yor sama site bopp yor sama liggéey bopp ma fu ma tourné naan site site te yoo xam nga ci dara mais maa ngi fii ci réew mi bu wax jotee ma génn taal Sénégal delluwaat sama rëq toog. yi laay taal bi yi laay def.